لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب لك المجد يا رب يا ربي يا ربي يا رب لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب لك المجد يا رب ahmaduka rabbi kama allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala xayri xalqihi muhammadin alladi ballaga alrisaala wa adda alamaana wa kashafa algumma wa nasaxa alumma xata tarakana ala maxajatin bayda layliha ka nahaariha laa yaziigu anha illa haalik ma min xayrin illa dallanaa bih wa ma min charrin illa xaddaranaa minh wa salla allahu alayhi wa ala jamici aalihi wa sahaabatihi algurri almayaamin wa man iqtafaa nahjahum wa aasara aasaarahum wastanna bi sunnatihim ila qiyaami saaca wa baad mbokki jullit yi Daarul Birri TV moo dellusiwaat ak yéen ci émission bii di al aadaab alsharciya muy tegginu diine yi tegginu diine muy ay bind yoo xam ni jullit bu nekk war na koy bàyyi xel ndax teggin dafa am solo teggin mooy taaral jëmm nit jikkoy nit ak i duggam ak génnam teggin yooyu jullit bi bu ko làmbaayoo dina nekk koo xam ni daa dinay taxaw ci lenn ca la ko war muy nag ay teggin yu bari yoo xam ni bokk na ca tegginu jullit bi ak boroomam tegginu jullit bi ak alquran tegginu jullit bi ak yonentam ba ca suuf nga xam ni benn bu ci nekk lu nu war a bàyyi xel la ñu ngi ñëw ak ci njalbeenu bind bi di al adabu ma allah muy tegginu nit ki ak boroomam xam ni teggin la boo xam ni jullit bu nekk war na mu tegginoo ko te la ci jiitu mooy jullit bi war naa xam kuy boroomam su xamee kuy boroomam rekk kon dootul jël moroomam di ko jaawaleeg boroomam ndax boroom bi boroom la waaye moroom bi moroom la doo jël àqu yàlla di ko jox mbindéef waaye doo jël àqu mbindeef di ko jox yàlla yàlla moomu nga xam ni moo bind asamaan ak suuf te bépp ndam bi caabi asamaan ak suuf mi ngi ci loxoom tabaaraka wa taala borom boobu moo xam lépp dara réeru ko dara faatu ko ci xam gu biir nag boo xam ni amuta lenn lu koy raw donte tollu nag peppu zarra loolu du réer borom bi yi fàddu yépp borom bi moo xam fa mu nekk ndax moo ko fa def moo tax borom bi wax ci suuratul an'am aya 59 mu ne wa indahu mafatihul gaybi laa yaclamuha illa hu wa yaclam ma fi barri walbaxri wa ma tasqutu min waraqatin illa yaclamuha wala xabatin fi zulumaati al ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin borom nekk na fa moom caabi ndàmb yi fàddu moom borom boobu moo xam li ne ci jéeri ji ndax moo ko fi def moo xam lu nekk ci géej gi amul benn xob buy rot jóge ca kaw garab di wat lu dul borom bi xam na ko moo xam xob bu wow la walla bu tooy lépp luy yukkat ci biir lëndamaayu suuf borom boobu xam na ko def na ko ci téere boo xam ni mooy lawxul mahfuuz la nekk lépp lu ñu sàmm la te wattu ko mbokk yi borom boobu jullit ñi war nañoo góor góorlu ci jéem koo xam ndax li ngay gis tey ñuy wax ay kàddu te muy fooye borom bi léeg-léeg nit ki mën na koo def lu ndaw fekk muy lu rëy dina dem sax ba ci yenn ci jàngkat yi ñu ciy juum ndax dañ leen cee juumloo dina dem ba boroom xam-xam yi mën nañ caa fekk nit ñi di ko wax te nekkut lu nu war a wax ndax teggin dafa yey suñu digganteeg borom bi ndax huwa yaalamu xaainata al ayun wa ma fi sudur bépp góor ak jigéen war naa jox yàlla teggin bépp taalibeeg sëriñam war nañoo jox yàlla teggin bu ñu jëlli yàlla moom di ko moomale mbindeef yi bu ñu jël li mbindeef yi moom di ko moomale yàlla ndax yàlla mi nga xam ni moo bind xéewalal wërsëgal di dundal di rey kooku dafa jaadu ñu am ci moom respe borom bi daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko kon waruñoo jaamu keneen ku dul borom bi borom bi daf ñoo bind tere ñu bokkaale kon war nañoo moytu bokkaale moo xam bu nëbbu moo xam bu feeñ borom boobu bokk na ci màggaayam du nelaw du gëmmentu laa taaxuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawaat wa ma fi l mbooleem lu nekk ci biir asamaan mboolem lu nekk ci biir suuf borom boobu moom moo ko moom borom boobu yërmandeem daj na asamaan ak suuf borom boobu mbokk yi yërmandeem ëpp na asamaan ak suuf wasiat rahmatahu kulla shay borom boobu mbokk yi moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci ay mbindéefam ci seeni wërsëg seeni wér-gi-yaram seeni néew doole kon bu jaam bi jum ba jël palaasu borom bi daldi koy jox morom mi ñëw na ci saxiix muslim xadis boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo nu koy leeral mu ne inna allaha laa yanaam wala yanbagi lahu an yanaam yaxfidu alqista wa yarfacuhu wa yurfacu ilayhi camalu lleyli qabla camali nnahaar wa camalu nnahaari qabla camali lleyl xijaabuhu nnuur law kasafahu la axraqat subuhaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min xalqi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi day du nelaw te yellul ci moom mu nelaw kon boo bëggee jël mbindeef def ko boroom juum nga ndax mbindeef mooma nu mu mënti tollu day nelaw su dee sëriñ dafay nelaw su dee wàll yi walla xut bu walla yonent dafay nelaw kon képp kuy nelaw kenn walu laa jox palaasu borom bi kenn waru laa jox moomeelu borom bi borom bi subhaanahu wa mooy yëkkati lu ko neex di wàcce lu ko neex bépp jëf bu jaam ñiy jëf bu dee suba si borom bi dana ko jot su dee ngoon si dana ko jot mbokk yi borom bi def boppam kiiraay ak i jaamam nga xam ni jaam ñi munuñ koo gis su borom bi génne woon kiiraay boobu kon fa gisam di àgg dana lakk kon naka la nit kiy juume ba mën a wax ni gis na borom bi loolu njuumte rëy la naka la nit di juumee ba mën a wax ni may yàlla loolu njuumte lu rëy la naka la nit kiy juumee ba du xàmmee yàlla ak ki yàlla bind mbokk yi borom bi tabaaraka wa taala mooy jox jaam ñépp kenn ku nekk la nga yellool moo la koy jox ci sa wërsëg ndax wa ma min dabbatin fi ard illa ala allahi borom bi nee na amul benn aji yukkat bu nekk ci biir suuf ak biti suuf lu dul sa wërsëg yàlla la koy jox aanaam ñu nekk ci ay nit ni ñu toll di similaire poussière yàlla leen di jox wërsëg la ñuy lekk guddi lañuy ñuy lekk bëccëg yàlla leen koy jox jinne yi ëpp nit ñi ay yoon seen wërsëg yàllaa ko yore xoolal bahima yi ni ñu toll waxtu wu nekk nga gis boo xamul woon waxtu wu nekk nga jàng loo jàngul woon te loolu lépp borom bi tabaaraka wa moo ko def kon kooku moo yeyoo ñu dellool ko coobare coobare kenn du ko delloo mbindéef nit kenn du ko delloo dogal nit kenn du ko sàkku lu mu mënut mbokk yi borom boobu taala wa moo nu bind te dana nu rey dana ñu dekkil te bu ñu dekkee kenn ku nekk dana la fay la nga doon def ku doon def lu baax a santal yàlla te bég danga ko jot ku doon def safaan bu yeboo nga jooy waaye danga ko jot borom boobu mbokk yi bis pénc dana lem asamaan ak suuf def ko ca ndeyjooram taxaw nag bàkku ne man maay buur ana buur yi ñëw na ci xadiisun muttafaq alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaqbidu llahu al arda yowma alqiyaama wa yatwi lsamaa bi yaminih summa yaqulu ana almalik ayna muluku l borom bi ne man maay buur ana buuru suuf yi mbokk yi noonu jinne yi toll ëpp nit ñi lool malaaka yi noonu lañu lañ ëppee te dara réeru ci borom bi moo tax yonent bi wax sallallahu alayhi wa ci xadis boo xam ni ibnu mardawiya soloo na ko cheikh nasiruddin albani wéral ko yonent bi ne attati sama wa yaxiqu laha an taitta walladi nafsu muhammadin biyadih ma fiha mawdiu shibrin illa wa fihi jabhatu malik sajid yusabbihu llaha bihamdi allahu akbar borom bi ne asamaan ngëkk na yell na ci moom mu ngëkk amul yonent bi nee na giñ naa ci borom bi nga xam ni sama bakkan mu ngi ci loxoom nee na asamaan moomu nga xam ni mooy asamaan borom bi ne yonent bi ne amul bërëb bu sebre mën a tolloo maanaam diggante loxo yaatuwaayam lu dul foofu benn malaaka ma nga fa sujjóot di sàbbaal yàlla boo xooloon asamaan ni mu toll lépp bërëb bu sa loxo xaj rek malaaka teg na fa jëwam su yàlla kon mbokk yi borom bi am nañu ko jaamu am nañu ko topp te duñ koy may ndax malaaka yi laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun yow mbokk jullit bi jàppal yàlla muy sa borom nga bañ koo utal ndend bañ koo utal bokkaale dégg ay ndigalam bàyyi ay tereem jàng alquraanam tey xool keemaan yi mu def ndax am na ku mën a def lu mel noonu képp koo xam ni yaa ngi koy jox palaasu borom bi yëgal ni morom mi la danga jum mbokk yi yàlla yàlla la mbindeef mbindeef la bañ na ko ba def na ci ñun juróomi mbir yoo xam ni kenn mënu ci remplacer moroomam juróomi mburu yooyu ku la ci mënta wuutu yellul nga def ko borom bi yellul nga yaakaar ko yellul nga ñaan ko yellul nga laaj ko dogal yellul nga jàpp ni xam na xëy juróomi mbir yooyu ban la borom bi def na ci ñun nelaw nelaw ku nekk ci ñun yaa koy defal sa bopp amoo benn kilifa bu la mën a bëgg sopp la ba nga gëmmant mu ne la baal ma nelawal la kon kii nelaw na xam ni mbindéef la ndax boo xësee ba nelaw génn nga ci ak nite say bët daa gëmm ku say bët gëmm sa suuf day ubbeeku ku sa suuf ubbeeku lu ne mën naa génn ngelaw mën naa génn sobe mën naa génn say loxo mën naa laal ci bërëb bu mu warta laal kooku mel noonu te ñépp ni mel kooku kenn waru koo def ab yàlla kon mbindeef munta nekk yàlla kon bis bi nga jàppee ni diw yàlla la walla yow yàlla nga laaj ko ndax day nelaw saabu bu nelawee rek munta nekk yàlla ndax laa taaxuzuhu sinatun wala nawm kon képp kuy nelaw yëgal ni ku manqué nga boo gëmmentoo dootoo am xàmmekaay dangay naqari deret dootoo neex a waxal kon nelaw sëriñ mënu la koo remplacer wàlli yi mënu la koo remplacer yonent mënu la ko remplacer nelaw kenn ku nekk yaa koy defal sa bopp ñaareel bi lekk kenn mënu la koo defal kon ki nga ni yàlla la wala ki nga yaakaar ba ni mooy dogal walla nga ni moo yore mbir yi wala nga ni mooy taw wala nga ni moo yore ngelaw li day xiif day lekk donte gisuloo ko day lekk képp ku nekk mbindeef di doomu aadama rek da nga lekk da nga naan moo xam nag nga lekk fu ñu la gisee wala nga làqatu lekk waaye da ngay lekk kon nag amul daraja bu nit am ba du xiif amul daraja bu nit am ba du lekk amul dara bu du daraja bu nit am ba du sonn moo tax borom bi teg ñu weeru koor ñun ak yonent yi ak xutbu yi ak wàlli yi ak xaws yi ñépp dañuy woor te ku woor bu timis jotee danga nga xiif te ku xiif danga ndogu danga laal kafe laal tàndarma laal kénkiliba kon kuy naan café tàndarma kénkiliba mununoo lekk yàlla ndax munoo xam dogal yow ak man ak taalibe bi yéen a yem kon yekkal ab kilifa yi diina di ku baax waaye buñ la teg bu ñu la war teg ndax mbokk yi yëgal ni képp koo xam ne yaa ngi dund dangay soxla woo lekk da ngay soxlawoo naan kuy soxla woo lekk ak naan da ngay feebar dangay ngay tële da ngay soxla da ngay soxla jigéen jigéen dalay soxla kon loolu kenn mënu ci remplacer nit naan kazalika naka noonu ki nga def ni mooy yàlla mbaa nga jox ko palaasu yàlla mbaa ngay waat ci moom mbaa ngay yaakaar ko day naan day naan ndox mu sedd day naan meew day naan glace day naan boisson loolu lépp ngay soxla da koy soxla kon nan nga ko mën a jëlee nga yaakaar ko tey ak ëllëg ëllëg du mbiram kenn mbirum yàlla la kon nit ñi nañ leen teg palaasu nit yàlla la ñu jox ko palaasam ñaareel yi wala ñetteel bi ci mbir yi kenn mënu la ci remplacer dafa neexul wax ñu baal ma xëy na wax pour mu leer rek moo tax ma leeral ko waaye képp ku nekk mbindeef képp koo xam ne nit nga danga soxla lekk naan ku lekk naan am na looy soxla xel mën na koo daj ku lekk naan rek am na loo soxla la nga soxla lan la mooy ci biir kër gi def nga fi néeg yu bëri rafet na lool waaye am na ruq bu ndaw boo xam ni ci sa biir salle de la wala nga làq ko ci biti wala ca biti lay doon nga tuddee ko gannaaw kër kon ku lekk naan da nga dem gannaaw kër képp kuy dem gannaaw kër nag mënuloo nekk yàlla kenn warulaa diis soxla dañu laa war a ñaanal kuy dem gannaaw kër nag ñaar nga ci soxla moo xam bu mag bi wala bu ndaw bi muy tuur ndox wala tuur dugub kon mbokk yi nan leen xam ni ñun dey ay jaamu yàlla lañ yàlla moomu binduñu nag moo bind asamaan bind suuf yell nañu jox ko respe respect yell nañu gëm ko na ñu topp ko yell nañu sopp ko yal na yàlla defal ñu jàmm defal leen jàmm li ñuy wax nii nag du ñekk teggin du dara waaye teggin yi dafa war suñu digganteeg suñu borom bis bu nu ko xamee dootuñu jaawale borom beeg morom mi bu ñu ko xamee dootuñu jaawale sëriñ beeg yonent bi bu ñu ko xamee dootuñu jaawale sëriñ beeg malaaka bu nu ko xamee dootuñu jël taw di ko jox mbindeef bu nu ko xamee dootuñu jël lekk ak naan di ko jox mbindeef yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ba darsi bii di ñëw incha allah rabbi lakal hamdu ya rab lakal shukru ya rab lakal majdu ya rab لك الحمد الشكر يا رب لك المجد يا رب